السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ñu ngi nuyu mbokk yi tedd yi teew ci bërëb bi yëpp di ci jiital sunu sëriñ sunu wasila sunu soppe cheikh al islam amirul muminin imamul mahdi al muntazar xujbul axtaamul kabir seydi mohammed el cheikh sang bi ñu ngi lay nuyu di la ziar kàddu yi tey nag mënul weesu sant jëmm ji toog yi ak ñun ndax lim ñu defaral ëpp na boole nañu ci bërëb bii di Medina Cheikh defar nañu ba nga xam ne xàmmee nañ dëgg ak lu dul dëgg ndax suñ nee cheikh al islam ngeen ñëw ci bërëb bi diiru budd ba tey dañuy julli fajar wasifa julli waxtu yëpp wasifa ba gee te benn julli du manqué benn bopp tarixa bi du manqué kon suñ leen ne kii mooy cheikh al islam ñu war ko mën a gëm kon sang bi sant nañ la ci loolu dañoo xool xool lan lañ la mën a ñaan tey mais ñu xool ne maanaam dañ ñu dañ ñu defaral lépp lu ñu soxla dañ ñu defaral lépp loo xam ne soxlawuñu ko soxla nañ ko ndax dañ ñu jiitu ci ñun ki la téye soroo ba doo daanu ki lay demal koo xam ne neewoo ko pour dox sa digganteeg yàlla kooku defal na la lépp te sang bi defal nañu lépp comme xamuñu luñ lay ñaan waaw di la ñaan rek nga dolli ñu téye li ñu nekk say taalibe di la ñaan nga dolli ñu dimbal ñun ba ñu mottali suñu digganteeg yow ñu xam nuñ lay téye ñu xam nuñ lay fonkee comme taalibe bi ni mu war a fonkee sëriñam waaw mais sant dëggantaan dëggantaan jërëjëf alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh
bismillahi rahmani rahim
mbokk yi waa daairatul imaam imaam al mahdi al muntazar alayhi salaam qutbul a'zam ne bismillahi rahmani rahim
asalaamaaleykum ñu ngi nuyu mbokk yu tedd yëpp ne asalaamualeykum mi ngi nuyu mbokk yu tedd yëpp
di ziyaare itam njaboot bi yëpp di ziar itam njaboot gi yëpp
ci bés bu rëy bi nga xam ni moom la ñu fi yàlla dajale ci bés bu rëy bi nga xamante ne moom la ñu fi yàlla dajale
moo tax ñuy jiitu di ko sant moom yàlla moo tax ñuy jiital kàddu gi di ko sant moom yàlla
moom mi nga xam ni moo wax la in shakartum la azidannakum moom mi nga xamante ne moo wax ni la in shakartum la azidannakum te ba ñu ko santee ba léegi te ba ñu ko santee ba léegi dafa dëkk ci dinu dolli dafa dëkk ci li ñu dolli dolli boo xam ni nag dolli boo xamante ne nag ñun ñoo ko sax yëgal suñu bopp ñun ñoo ko sax yëgal suñu bopp kon ñun fu nu toll sant yàlla def ñu war kon ñun nag fu ñu toll sant yàlla daf ñu war ginnaaw loolu ñu yeesal suñu ziyaare sant bi ne ginnaaw loolu ñu ngi yeesal suñu ziyaara ki nga xam ni ñun ak moom ñoo bokkoon jotaay bi ci bii ki nga xamante ne ñun ak moom ñoo bokkoon jotaay bi bii bokk ak moom jotaay ba léegi bokk ak moom jotaay ba léegi te mu di ki nga xam ni moo waral lépp te di te di ki nga xamante ne moo waral lépp mu di yonent bi sallallahu alayhi mu di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
yeesal sunu ziyaara sang bu tedd bi ne mi ngi yeesal ziyaaram sang bi nga xam ni ci sang bi nga xamante ne du ñu tàggalikoog moom mukk duñu tàggalikoog moom mukk te ñaanuñu sax di mës a ak tàggalikoog te moom ñaanuñu sax di mës a tàggalikoo ak moom di Mawlaay Cheikh Ahmed mu di Mawlaaya Cheikh Ahmad ibnu Muhammad ibnu Muhammad Tijaani Chérif al-Tijaani Chérif
xaw ma ko amul sens de sang bu tedd bi ne amul kan moo amul chance waaye ñun de am nañu sens waaye ñun de am nañu chance
ci xayb ak shahada yëpp di wër nee na ci rayb ak shahada yépp di wër
soo amee mu ñëw toog sa jotaay leeral soo amee mu ñëw toog sa jotaay leeralal la ko
am nga loo xam ne lu jafe la ci jamono am nga loo xam ne lu jafe la ci jamono axiru zaman
ndax jamono axiru zaman sang bi ne jamono axiru zaman
lii gën a jafe li gën a jafe mooy am leer mooy am leer lii gën a yomb li gën a yomb nga xam ni boo ko bëggee nga xam ne boo ko bëggee ak boo ko bëggul ak boo ko bëggul sax chaque jour ñu présenté chaque jour ñu présenté la ko Mooy lëndëm.
mooy lëndëm
ñun ñu am lu gën a jafe ñun nag ñu am lu gën a jafe leer gu nu niite muy leer bu ñu niitee niite sunu rox niite suñu rox niite sunu xol niite suñu xol niite lépp loo xam ne niite lépp loo xamante ne dañ ciy dund dañ ciy dund nekk ci nekk ca
ki ñu ko defal nag sang bu tedd bi ne ki ñu ko defal nag
moo ñu may bis bu mel nii moo ñu may bés bu mel nii
boo gisee ma door ni am nañu sens ñun ne boo gisee bu doog ni ñun am nañu chance wasifa tisbaar bii mooy gis nga wasifa tisbaar bii
la ma ca Mawlaay Cheikh Ahmed Tijaani Chérif waxoon li ko ci Mawlaaya Cheikh Seydi Ahmed Tijaani Chérif waxoon ni ma 70 salaatul fatiha ya ma doon jàng ne ko soixante-dix salaatul faatihi ya ma doon jàng ba seen yonent bi di ñëw ba seen yonent bi di ñëw ma xalaat ni yonent bi kat ma xalaat ni yonent bi kat maa ngi dox ci suuf si maa ngi dox ci suuf su tàng ci désert di désert génn xayma ba génn xayma ba te ni muy waaxoo te ni muy waaxoo jëm ci man jëm ci man boo moytuwul boo su ma moytuwul naree wàññeeku su ma naree di wàññeeku wut lu ma ko lalal di wut lu ma ko lalal dinañu daje dinañu daje wala mu agsi wala mu agsi te te dalalaguma dara laguma ko mu dindi kaalaam mu dindi kaalaam lalal ko lalal ko ne marhaban ne yaa marhaban yaa sayyidi
Yonent bi toog.
yonent bi toog mu ni keroog bi yonent bi toogee mu ne keroog bi yonent bi toogee dafa ni ma jàngal ma li ma bëgg dégg dafa ne ko jàngal ma li ma bëgg dégg Cheikh Tidiane Chérif ni ma Mawlaaye Cheikh Tidiane Chérif wax ko moom ni ko ma jàngal ko juróom-ñaari jawhara ma jàngal ko juróom-ñaari jawharatul kamal mu ni yonent bi tënkal ma buul ba mu ne yonent bi tënkal ma bul ba tënkal ma leer ga tënkal ma leer nga
defal ma ko ngëneel defal nga ko ngëneel ci man ci man mu ni nag keroog mu ne man nag keroog bi ma lay jox wasifa tisbaar bi ma lay jox wasifa tisbaar bi boobu laa dajji bul boobu laa dajji la jëlal ne la jëlal yow ak say njaboot yow ak say njaboot
moo tax wasifa bii moom sang bi ne moo tax wasifa bii moom
li may baax baax yëpp di leen garanti li muy baax baax yépp di leen garanti fii at ba at rek laa ko mën a garanti bii moom at ba at rek la ko mën a garanti wasifa bii wasifa bii boo ko amee tey boo ko amee tey boo ko amaatee boo ko amaatee jëwoon la ci at mi déwén na rek ci at mi ci heure bii ndax li ciy génn ndax li ciy génn ci fuyu daat ci fuyu daat li ciy génn li ciy génn ci xaqiqatu ci muhammad xaqiqatul muhammadiya li ciy génn la ciy ci génn gëneel ci ngëneel li ciy génn li ciy génn ci leer.
ci leer waaye ñi koy escorté waaye ñi koy escorté nag
ñi koy escorté nee na ñi koy escorté ak seen sàppe lumière ak seen sàppe lumière ak yi seen lance lumière ak seen lance ba lumière yi fu njaboot toog ba ku njaboot toog ñu wër la ak seen ñu wër la ak seen leer mën nga lëndëm de nee na mën nga la dem de mën nga bare bàkkaar mën nga bari bàkkaar de mën nga yàqu sax mën nga yaafuus sax waaye boo génnee fii waaye boo génnee fii boo amaatee bàkkaar boo amaatee bàkkaar dafa fekk yaa ko wutal sa dafa bopp fekk yaa ko wutal sa bopp boo yàqutee boo yaafuusee fekk yaa ci bëgg dafa continuer fekk yaa ci bëgg continuer boo amatul yiw boo amatul yiw fekk yaa bëggul yiw dafa fekk yaa bëggul yiw ku génn fii ku génn fii da nga leer nañ da nga leer naññ na bis ba nga xamee ne bés bi nga xamante moom ne la yàlla raxu si moom la yàlla raxasoo sa bopp dugal ko ci yow dugal ko ci yow
loolu mooy sens bi nag nee na loolu mooy chance bi
ndax mën nga jaamu yàlla ba sonn ndax mën nga jaamu yàlla ba sonn léeg-léeg mu jéggal la dara léeg-léeg mu jéggal la dara léeg-léeg mu bàyyi dara léeg-léeg mu bàyyi dara waaye fii waaye fii boo fi génnee boo fi dafa génnee mel na koo xam ne dafa mel ni koo xam dafa ni tilimoon rek dafa tilimoon rek mu xëy rek mu xëy ñu rek dugal ko ci benn ñu bant dugal ko ci benn bassin sang ko sang ko sang boo xam ne sang boo xam ni amatul benn tilim amatul benn tilim buy tilim des ci yaram buy des ci yaramam waxatuma laa waxatuma la ñoom sang ba nii sang ñoom sang bi ñuy sang ñoom duñu sang yaram rek ñoom duñu sang yaram rek de dañuy sang yaram dañuy sang yaram sang xol sang xol sang roo sang ruux sang xel sang xel sang sang jëfandikukaay jëfandikukaay sang na ngay doxe sang na ngay doxee
ñoom duñu sang yaram rek sang bi ne ñoom duñu sang yaram dañ rek lay sang dañ lay sang ba niite say bët ba leer.
nii ne say bët leer
gis nga la ngay zikr gis nga la ngay zikr
yow mi nekk ci xëlwa laa wax yow mi nekk ci xalwa la wax
yow mi nekk ci xëlwa yow mi nekk ci xalwa
di zikr di zikr salaatul fatiha salaatul fatiha
ci dooru at mi ci doomu at mi ba at mi fekkal ba at mi fekkaat la fa te ba ngay zikr te ba ngay zikr yàgg xay bu da ngeen connecté yaa ngay ko da ngeen connecté bés bu nekk bés bu nekk téeméeri junne ci malaat téeméeri junni ci malaayika dinañ ñëw dina ñëw defal la yiw defal la yiw yaa ngi ci sa xëlwa de yaa ngi ci sa xalwa de at ba at at ba at
yow moomu yow moomu ak at bi nga passé ci ak at xëlwa bi nga passé ci xalwa ak connexion ba nga ak amoon connexion ba nga amoon défier naa défier na la moom Mawlaay Sidi Mouhamed la Cheikh nan laa la défier nee na nan la défier benn perle mooy benn perle istighfar bu ñu jàng fii istighfar bu ñu jàng fii Siwal di fa tisbaar.
Siwal di Jënd na fa tisbaar fii sa xel.
jënd na sa xel bu baax.
waxuma 30 yi sang bi ne waxul trente yi de
tudduma sax salaatul nee fatiha na tuddul sax salaatul fatiha yi
tudduma laa ilaha nee na illallah laa ilaha illallah bi ñëwagul jawharatul kamal ñëwagul tuddul li jëwatu kamaan tax ñëwagul
dama ni yow mi nekk ci nee xalwa na dafa ne yow mi nekk ci xalwa te bu ma ko waxee xam naa li may wax ne xam na li muy wax de
ñay calculer leer ya nee na ñay calculer leer ya mafatihul kunus di ma faatixul kunuus di yi ko yóbbu di ko yóbbu ca kaaba ga ca kaaba ga ñuy jàllale leer ya ñuy jàllale leer ya ñuy mathématicien wu xayb ñuy mathématicien wu xayb amul ci koo xam ni amul ci koo xamante ne ñoom kenn ci ñoom kenn ku ma maîtriser wul ku ko ma- ku mu maîtriser wul science am science am xam naa nañoo calculer leer xam na nan la ñuy calculer leer
xam naa fa leer nekk xam na it fa leer nekk xam naa fañ koy jëlee xam na it fañ koy jëlee xam naa niñ koy sole ci xam doomu na it aadama.
nañ koy solee ci doomu aadama
mën nga am leer imaam al mahdi ne mën nga am leer te doo xam nuñ koy sole te doo xam nan lañ koy solee ci jëmm
mën nga am xam-xamu leer nee na mën nga am xam-xam leer te doo xam nooy def ba tas fu yu daal di te doo xam nooy def ba tas fuyu daal di ci jëmm Cheikh Tidiane day jàngal na ma leer Cheikh Tidiane Chérif jàngal na ko moom maîtriser naa leer maîtriser na leer am moom naa xëlwa bi ma wax xam na xalwa it bi mu wax ñaata fe fe ferñeentu leer ñaata ferñeentu leer su borom zikkaree su borom li zikkaree mu zikk ci salaatul li mu fatiha zikr ci salaatul ak fatiha téeméeri junne malaaka ak yooyu téeméeri junni malaayka At ba yooyu at.
at ba at ñaata ferñeentu leer ñaata ferñeentu leer ñoo koy fekk ci foofu ñoo koy fekk ci boppam moo leer tax ma défier moo tax mu défier borom xalwa moom ba.
borom xalwa ni ko sa xëlwa ba ne ko boobu sa xalwa boobu benn istighfar benn istigfaar bu jàng fii bu ñu jàng fii Siwal di fa tisbaar.
Siwal di fa tisbaar jënd na sa xëlwa jënd na sa xalwa boobu te waxuma France te nee na waxu trente yi
kon réalité wasifa tisbaar Imam al-Mahdi ne kon réalité wasifa tisbaar amul benn cadre wasifa amul benn cadre wasifa bu nit di tibbee leer bu nit di tibbee leer bu ëppee bu ëppee doole doole buulu Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani buulu Mawlaaye Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ko
xam nga lu tax Cheikh Tijani Chérif jox ma ko sang bi ne xam nga lan moo tax Mawlaana Cheikh Tidiane jox ko ko dafa ñu ma da nga nekk ci axiru zaman nee na dafa ne ko da nga nekk ci axiru zaman yaa ngi leeral yaa ngi leeral waaye teewul lëndëm ba dafa bare waaye teewul lëndëm ba dafa bari ñi gëlëm dañoo bare ñi gërëm dañoo ñi bari nga xam ne bu ñu leen seetaanee ñi nga xam ne bu ñu leen seetaanee anku ñu sanku dañuy bare dañoo bari kon nag léegi kon nag léegi comme da ngay jug di defar comme da ngay jóg di defar la nga waroon passé ci ay la at nga waroon passé ci ay at di defar di defar nan la ko defaral ci nañ ay la ko sabab defaral ci ay seconde ma ne lu leen di jëriñ nee na mu ne lu leen di mu ne jëriñ ma wasifa tisbaar mu ne ko wasi petit baaw bii
muy garanti boo xam ni muy garanti boo xamante ne li mu mën ci roox li mu mën ci rox dara mënu ko ci dara mënu ko ci moom
te kenn ku nekk te kenn ku nekk ci ñi nga xam ne ñoo koy ci ñi dund nga xam ne ñoo koy am dund na nu yaqiin am nañu ci yaqiin leer kese ni leer kese la
ndax lii mooy Medina Cheikh ndax lii mooy Medina Cheikh
Medina Cheikh Tijaani Cheikh Medina Cheikh Tidiane Chérif lii la lii la
lan la lan la yonent bi yonent bi Cheikh Tijaani Cheikh Cheikh Tidiane ñu Chérif jiital yàlla ci ñu jiital yàlla ci lépp lii mooy Medina Cheikh lii mooy Medina Cheikh Tidiane Chérif ëttu xaqiqa la nee na ëttu xaqiqa la ëttu buy dundal roox la ëttu buy dundal wax la fi ñu toog nii fan la nee fi doon nii fan la marajal bahrayni مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
alquran moo ko tudd القرآن moo ko tudd science bu nekk ñëw na nee na science bu nekk ñëw interprétation bu nekk na interprétation bu nekk def nañ ko ci waaye bi ma ci def man waaye bi mu ci def moom ma gëm man mooy bi mu gëm moom toog fii ñu toog presqu'île di bi presqu'île bi presqu'île bi nga xam ne presqu'île bi nga xamante ne Tijaani Chérif Cheikh Tidiane Chérif moo ko rëddal boppam
nga toog ci guddi gàndu nga leer toog ci diggu bandu leer
xam nga nit mën na wax dama wuti woon leer xam nga nit sax mën na wax man damaa uti woon leer wala damay jikko pour am leer wala damay zikr pour am leer ki toog ci mbandu leer ki toog ci mbandu leer ba
ki dox ndox mu mu naan ndekete leer ki la dox ndox mu mu naan rek la ndox mu mu naan leer la naan
ki dox ci suuf soo xam ni pepp bu mu dëgg ki la dox ci suuf soo xam ne fépp mu mu dëgg ndekete leer la
ki nekk foo xam ni ki nekk foo xam ni mook arjul kursi moom Abdul Qudsi Cheikh Tijaani Chérif Cheikh Tidiane Chérif Nee na benn la.
nee na benn la
loo ko mën a tudde nee na loolu loo ko mën a tuddee
ku yàlla na mu baaxal ku yàlla na mu baaxal ku yàlla may chance ci dund ku yàlla may chance ci dundam ku yàlla décidé jëriñ ku yàlla nga décidé jëriñu ci nga leer jëriñu ci leer di fa dund
moo tax ñuy wax xaqiqatu imam al mahdi al muntazar ne moo tax ñuy wax xaqiqa bi
xaqiqatu muhammadi xaqiqatul muhammadiya bi efficacité bi mu am efficacité bi mu am fii ci Medina Cheikh fii Tidiane ci Medina Cheikh Tidiane Chérif c'est du jamais vu c'est du jamais vu
xam nga bu ma nee du jamais vu nag nee na bu nee du jamais vu nag ñu dégg français dañu defe ni ñu dégg français dañuy yaakaar ni dama wax rek comme ni ko tubaab yi di dafa wax rek comme ni ko tubaab yi di waxee bu ma nee du jamais vu nee na bu nee du jamais vu entre xayb entre rayb Shahada, shahada rays, rays bast, bast xayb nasr raybu nasra xayb fatah raybu fatha du jamais vu du jamais vu
xam nga lu tax mais xam nga lu tax
bahrul kanzi Baharul Kanzi moo tax
te bahrul kanzi te boobu Baharul Kanzi boobu moo jur ci moo Tidiane jur ci Cheikh Tidiane yi loo xam ni loo xam ñi ni nga xam ni ñëpp ñi nga xam ni ñëpp miinuñu science gnostique miinuñu science mystique ñu weddi loolu ñu weddi loolu muy kat mi yëpp muy kat mi l'intermédiaire l'intermédiaire entre le prophète entre Mohammed le prophète Mohammed et salut sur paix et salut sur lui et les autres prophètes
kat mi yëpp kat mi bahrul kanzi moo ko Baharul Kanzi moo ko jur moo ko jur
lumière kat mi yëpp boobu nag lumière kat mi boobu bu nag ñu nekkee ci wasifa tisbaar ñu nekkee ci wasifa tisbaar moo ni arrosé moom moo ñu abordé
ñu bari comprendre duñu woon loolu sànq bi nee ñu bëri comprendre ñu woon loolu Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane yi ñaari lumière ñaari lumière lañu jagleel lañu fii jagleel ci Medina Cheikh fii ci Medina Cheikh gis nga bu ñu nekkee guddi gàmm gis nga bu ñu nekkee guddi gàmm
lumière u xat mi yëpp lumière bu xatmiya bi mooy arrosé rox mooy arrosé wax yi
bu ñu nekkee ci wasifa bu tisbaar ñu nekkee ci wasifa tisbaar lumière u kat mi yëpp lumière bu xatmiya bi mooy arrosé rox mooy arrosé wax yi
xam nga loolu lu muy signifier sànq bi ne xam nga loolu lu muy signifié
mooy kuy gàmmu Medina Cheikh mooy kuy gàmm Medina Cheikh nekk wëli yu lu ko yomb la nekk wëlu yu lu ko yomb lay doon lumière xat mi yëpp ndax lumière bu xatmiya bi moo ñu arrosé ci guddi moo googu ñuy arrosé ci guddi googu te ci lumière boobu te ci lumière ci ci lumière ca boobu la Cheikh Tidiane dala Cheikh Tidiane di Chérif tabbee di wëli tabbee wëli yi
wëli bu tisbaar wëli fa tisbaar lumière u kat mi yëpp lumière bu kat bi Moo ñuy arrosé.
moo ñuy arrosé xam nga loolu lu muy signifier nee na loolu lu muy signifié kuy fekkee wasifa mooy kuy fekkee wëli fa tisbaar yàqu du la yomb yàqu du la yomb
ndax lumière kat mi la ndax lumière bu kat bi tey bu ñu demoon tey bu ñu demoon ba nit ki nekk en manque de ba nit lumière ki nekk en manque de lumière
lumière day ñëw lumière day ñëw renforcer ko renforcer ko spirituellement spirituellement mystiquement
bari na ku yàq imaam an-Nawawi al-Muntazar ne bari na ku yàq xam nga lan moo ko yàq xam nga lan moo ko yàq dafa dem ba nekk en manque de dafa lumière dem ba nekk en manque de lumière renforcer wu te renforcer wuñ ko
boo demee ci médecin yi ne boo demee ci médecin yi léeg-léeg ñu xool nit ne léegi xool nit ni kii dafa manqué nit ki dafa manqué vitamine nangam vitamine nangam suñu ko ko deful ci suñ moom ko ko deful ci moom wala ñu jox ko yu mu wala ñu jox ko yu mu jël loolu mën na jur benn maladie loolu mën na jur benn maladie ci moom boo nekkee nag en manque de boo lumière nekkee nag en manque de lumière maladie bu muy jur ci yow maladie bi muy jur ci yow bu yàggee mooy feebaru bu yàggee mooy feebaru xol léegi nag buñ la arrosé léegi buñ la arrosé lumière quatre mille ak lumière bu quatre mille bi heure boo demee rek heure boo demee rek ba yëg ni yaa ngi rëb ba yëg ne yaa ngi rëkk yaa ngi nekk en manque de yaa ngi lumière nekk en manque de lumière lumière bee jóg lumière bay jóg ñëw ñëw ba ci sa rox ba ci sa rox mu dugg mu renforcer ko dugg renforcé ko nga jugaat fet nga jugaat ko benn
ndax baxrul kan bi ndax baaxul xel bi bi jur quatre mille bi bi jur quatre mille bi borom du wër leer boroom du wër leer Leer a koy wër.
leer a koy wër
guddi gàmmu guddi gàmm arrosé ñu ñu arrosé ñu ak leeru xat ak leeru xat mille bi
ma laaj Cheikh Tijani Chérif sant bi ne mu laaj Cheikh Tidiane Chérif ni ko sa guddi nag ne ko sa guddi nag mu ne ma man mu ne ko ak man Seydi Ahmed ak Seydi Ahmed di yonent di bi yeneen bi ñaar ñooy ànd ñun ñaar ñooy ku ne ànd tàllal sa ku loxo ne tàllal sa loxo Seydi Ahmed jàng Seydi fa Ahmed jàng Fatiha ma jàng salaatu ma jàng salaatu Fatiha ñu jox leen ko.
ñu jox leen ko
loolu kenn xamul sant bi ne loolu kenn xamul degré spiritualité boobu degré spiritualité boobu ni mu toll ni mu toll
fatiha yonent bi Fatiha yeneen bi ñi ko am bariwuñu ñi ko am bariwuñ de salaatul fatiha cheikh salaatu Fatiha Cheikh ñi ko am ñi bariwuñu ko am bariwul de moo ne ni moo ne de guddi Cheikh Tidiane guddi Cheikh Tidiane ku yi teew ci Medina képp Cheikh ku teew ci Medina Cheikh mën nga waat ni mën nga waat am nga ni fatiha am yonent nga Fatiha yeneen Salaatul bi am nga salaatu Fatiha yeneen
bi bi kon tey ñun kon tey ñun
fan yi ñu fi passé yëpp fan yi ci passé yëpp mooy fanu ngëneel yi mooy kenn fan mënul nga dabal.
neen ñu kenn mënul dabaatal
ndax nan ngëneel ndax nag nga neen jamono bu nekk zaman bu ne yàlla dafa am yàlla dafa am organisation organisation ciy def.
bu mu ci def
loolu la yàlla di doxalee noonu la yàlla di doxalee zaman gis nga jamono yonent bi gis nga jamono yeneen bi képp ku bëgg ngëneel képp ku bëgg nga neen moom ngay seet moom ngay seeti jamono Cheikh Tidiane jamono Cheikh Tidiane képp ku bëgg ngëneel képp ku bëgg nga neen moom ngay seeti lumière ba nag lumière ba nag organisation boobu organisation boobu noonu lay doxee ci ay réalité réalité silsila ba adduna dugg
xam nga boo waxee silsila nag nee na boo waxee silsila nag ñu bari dañu defe ni ñu bare dañuy def ni jàpp ci diw mooy jàpp ci diw diw jàpp ci diw diw jàpp ci diw mën na tudd silsila de nee na loolu mën na tudd silsila de man de loolu taxu ma jóg waaye moom loolu tax ko muy wax man silsila waxuma silsila nee na moom waxul silsila di dox ci diggante bu nit di dox ci diggante man silsila leer moom silsila leer bu bu bu bu bu jas bu bu boppam jas bu boppam ci beneen leer ci beneen leer muy jas bante ñuy jas ba ca leer gu mujj ba ca leer gu mu mujj kaamil mu kaamil
mu kaamil la wax mu kaamil la wax de
leer goo xam ni leer goo xam day ni jas bu moroomub leer day jas bu moroomu leer leer ga jas bu leer beneen nga jas bu ba leer beneen bu mujj ba ba leer bu mujj ba leer googu kaamil leer boobu kaamil su leer ga su kaamilee leer nga kaamilee nag waxee ca la ñuy wax branché yooyu ca la ñuy branché wu mooy 59 mooy salatu fatiha cinquante neuf salaatul fatiha yi mu doon wax bii
ruux buñ ci débranché ruux buñ ci débranché salaasim fay na salaatim fay na ruux buñ ci branché ruux buñ ci branché salaasim tàkk salaatim tàkk na Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane sa lumière boobu sa lumière ca boobu lay réglé ca lay ca lay réglé ca contrôlé lay contrôlé ca lay séddale ca lay séddale xaqiqa tariqa xaqiqa tariqa bi
te bu doon ci chiffre rek te bu doon ci chiffre rek wala ci nombre unitaire wala ci nombre visité rek da nga naan barewul dana naan bariwul waaye fekk na waaye fekk na xooluñu ñoom ci xooluñu nombre bi ci kenn nombre bi kese dañuy xool dañuy ci xool mystique gu ci nombre mystique nombre bi
moo tax Mawlaa Cheikh Amadou Tidiane moo tax Mawlaay Cheikh Ahmad Tidiane Chérif
mu waxoon ni axiru zaman mu waxoon ni axiru zaman
yonent bi prédire na ko de yeneen ci bi prédire na ko de wax na danger yi ci nekk wax na danger yi ci nekk de nitu yàlla yi fi jaar yëpp nitu yàlla yi fi jaar yëpp wax nañu danger yi ci wax nañu danger yi ci nekk waaye Cheikh nee na waaye Cheikh nee na daan wax danger yi daañu wax danger yi waaye itam solution yi waaye tamit solution ya am na tam am na tam ñu laaj ko ni ko ban solution ñu laaj ko ne ko ban solution mooy am ci axiru zaman ci axiru zaman mu ne lumière u falaat mu ne lumière salaatul fatiha
ñu ne ko moo ne axiru zaman de ñu ne ko moo ne axiru zaman de ba léegi bari na ñuy jàng ba léegi bari na ñu jàng salaatul fatiha mu ni waaye ñu connecté bari mu ne waaye ñi connecté bëriwuñu
xam nga yàlla dafa ni ne xam nga yàlla dafa ni inna salata tanha an inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar
nit a ngi julli nit a ngi julli guddeeg bëccëg guddeeg bëccëg te nga gis ba léegi mu te nga gis ne ba léegi mu nekk ci lu ñaaw waaw léegi yàlla nee na waaye léegi yàlla nee na julli ji moom julli gi moom dafay tere def lu bon dafay tere def lu bon tere def lu ñaaw tere def lu ñaaw di julli ba pare lu tax nit di julli ba noppi mënul bàyyi yële te mënul bàyyi mooy yële julli ja moo nangu mooy julli daa nanguwul
bu julli ba nangoo sang bi nee bu julli ga nangoo te la lay tere nag te la lay tere nag yooyu noonu la nit mënee yi noonu it la nit mënee jël kurus di zikr di zikr mais zikr ba su nangu mais zikr ba su nanguwul du changé du changé moo tax cheikh ni bari na ñu koy moo zikr tax Cheikh ne bëri nañu koy waaye zikr ñu connecté waaye ñu connecté nee na bariwul nee na bariwuñu
ndax ñoom wëliyu ndax ñoom wëliyu wëliyu yàlla wëliyu yàlla dañ koy tànnal dañ koy tànnal fan kay yaree fañ koy yaree laata mujj laata muy judd
moo tax jigéen yi zikr salaatu moo tax jigéen yi zikr salaatul faatihi am na nu cër bu rëy am nañu cër bu rëy benn jamono benn jamono bindoon naa way leen bindoon na moom sang bi way leen la may bind nag man la muy bind nag du moom bokk ak ñoom cheikh Daouda du ñële bokk ak ñoom Cheikh Daouda ñoom ñële ñoom la ñuy bind ñoom la ñuy bind ndax man sama bind su ndax moom bindam ma ko firiwul su ko firiwul arab bi ko firi arab du ko firi dama ni dafa ni bi sayaadaatil xayb bi sa yaadaatil xayb talsami tal tami nuuril xutb nuuril qutb da ngeen dégg lool wallaay nee na ndax mën suñu dégg loolu mu ne ko déedéet comme jàng nga firi nee na comme jàng ne suñu firi mënuñu de dama ni leen dafa ni bi sayaadaatil bi xayb sa yaadaatil xayb talsami tal tami nuuril xutb nuuril qutb waa daayira bi ñëw laaj ma yow lool waa dayoo ñëw laajte la yow loo wax ñun de xamuñu loo wax ñun de xamuñu loo wax miinu ñu ko itam miir ñu ko itam bu ñu demee ca naxu yi bu ñu demee ci nax wu ñu itam firi la nga wax duñu mën a firi li nga wax ma ni dama ni mu ne dafa ne jigéen ñu sell ñooñu jigéen ñu sell ñooñu nekk na ca seen biir nekk na ci seen biir lu leer boo xam ni bu dul leer boo xamante mérité ne nañ sax mérité nañu sax ëmb leeru xutba ëmb leeru xutbu zaman
dégg nga nu ni waxee ni imaam al-Mahdi ne ndax dégg nañu moom ni muy waxee
moo tax ñu bare moo tax ñu bari lan la ñuy jàng lan la ñuy jàng wa maa rabbuka wa maa rabbuka ndax moom lañ lay laaj ne ndax nee nañ loolu lañ lay laaj wa maa diinuka wa maa diinuka wa maa kitaabuka wa maa kitaabuka su ko defee ñu ni fexe ko bu ko moom defee ñu ne fexe ko mokkal de boo demee bu ñu lay laaj boo demee bu ñu lay laaj loolu ngay tontu loolu ngay tontu nga gis koo xam ni nga gis koo xam su ni ko parcourisé sax su ko particulier sax dalal na xelam dalal na xelam dafa ne ni day dem rek dafa ne day dem rek ñu laaj ko mu ñu tontu laaj ko mu tontu ba ni boo génnee àdduna nee na boo génnee àdduna yàlla day raxas sa xel ba mu set yàlla day raxas sa xel ba mu set wecc sol ci science su bopp sol ci science boppam yabal mun kii rek nag yabal mun ci rek nakil jox leen ay directives jox leen ay directive leen nan la laaj ne leen nañ la laaj léeg-léeg nu laaj la léeg-léeg ñu laaj la langue boo xam ci ne langue boo ba nga xam ni juddoo ba génn ba nga àdduna juddoo ba génn àdduna Mosoo dégg ñu wax.
mosoo dégg ñuy wax langue boobu nga laaj leen langue bi nga laaj leen langue bi lan lan la la arab la ñu ne la arab la de
ndax langue yi fa ñuy jóge ndax langue ya fa ñuy jógee fa ñuy jóge fa ñuy jógee source seen suuf seen réalité seen ba réalité làmmiñ ñu doomu aadama ba làmb ñu di doomu ko aadama jàng di ko ba di jàng ko mokkal ba di ko ba di ci mokkal exprimé ba wu di ci exprimé xam nga wu fan la ko yàlla xam dugal nga fan la ko yàlla dugal bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim arrahman arrahman fa la yàlla dugal fa la yàlla dugal leen xalaqal insaan xalaqal insaan fa la yàlla dugal fa la yàlla dugal leen allamahul bayaan alamahul bayaan fa la yàlla dugal leen
ñetti mbànd la yàlla jël sang bi ne ñetti mbànd la yàlla jël teg di teg bii ci arrahman bii ci bii arrahman al insaan bii al bii al insaan bayaan.
bii al bayaan
ba nekk ca arrahman ne ba nekk ci arrahman su la ko yàlla waxul su la ko yàlla waxul wala mu dégg loolu wala mu dégg loolu ko doo ko dégg abadan li ñuy wax foofu la jóge li muy li muy wax moom foofu la jóge ba nekk ca al ba insaan nekk ci al insaan mooy ba ngeen di jàng mooy ba ñuy jàng ba ni naxwu nii ba la ni naxu nii la ba conjugué ba conjugué ba jël seen ba grammaire jël seen ba grammaire ni baat bi nii la ba ni ko baat bi nii lañ ko war a waxee ba ca al bayaan ba ca al bayaan moom la malaayika yi moom la malaayika yi di wax
ñett yi ma la wax yëpp ne nit ñi moo wax arab yëpp la de arab la de
kon tey bi ñu dégg sax lu ne kon kay di ñu ñu dégg ba ñu naan arabisant bu mag la ba ñu naan arabisant bu mag la ma nga ca al insaan ma nga ci al insaan wal asri wal asri inna al insana la fi xusrin illa alladina amanu wa amilu salihaati
moo tax boo yamee moo tax ne boo yamee ci rek làkk arab ci rek làkk arab ñu ne arabisant ñu ne arabisant la sa jëfoo daray te alxuraan juboo daray alquran ndax du la jëriñ dara moo tax du la jëriñ dara ñaata nit la ñu tuddee arabisant ñaata nit lañu tuddee arabisant bu ñu taxawee fii làkk bu ñu taxawee fii làkk attan nga leen may lu nekk attan nga leen may lu waaye nekk bu ñu jëfee waaye bu ñu jëfee nga xeeb leen
langue ba dëgg la làng ba dëgg la waaye ma nga ca al insaan waaye ma nga ci al insaan te yàlla neen te yàlla nee na inna al insana la fi xusrin inna alladina amanu illa alladina amanu wa amilu salihat dafay am suivi kon dafay am suivi al bayaan al bayaan ba ca nekk ba ca moom la nekk malaayika yi moom la malaayika yi ca alamul malakut jaalagul malakut science boobu la ñuy wax science boobu la ñuy wax arrahman nag la ca nekk arrahman nag la ca ne boobu la xutba yi boobu la xutbu yi di wax ñu dimanche la nee na gis nga dimension
yàlla nga ko def ci alquran yi yàlla nga ko def nag ci biir alquran su ko defee nag su ko defee nga nag ñëw léegu la nga ne nga ñëw léebul mu ñëw moom yàlla mu léebul léegu la moom yàlla mu ñëw léebul ne arrahman indi xalaxal indi insaan xalaqal insaan allamahul indi bayaan allamahul bayaan nga interprété nga waaye interprété fekk bu ci ne waaye fekk bu ci ne am na lu mu ci def am na lu mu ci def
moo tax ëllëg nag moo tax ëllëg nag langue bu ko neex lay jël langue bu ko neex lay jël su ko neexee su ko neexee dugg ci bàmmeel nit dugg ci bàmmeel yabal mun ci rek mu yabal mun ci rek ni nakir leen su ngeen ne ñëwee leen su ngeen da ñëwee ngeen bàyyi na ngeen bàyyi secret bi ma leen defal secret bi ma leen defal ca al bayaan ca al te bayaan wax ak moom te wax ak moom ci secret langage secret langage bi nekk ci àll bi bi nekk ci ay insaan bu ñëwee mën nañ la ko mën kooku bu ñëwee mu ne la ko maa rabbuka
su ko neexee it su ko neexee mu ni leen.
mu ne leen yam leen ca albay yam leen ca al wax bayaan leen donc moom ci wax leen ak moom ci loolu kooku bu nit ki fekkee kooku bu nit ki fekkee arabisant la rek arab naa kese la ak insaan la du dégg wax yooyu
bële nag nga xam ne moom arab bële nag nga xam ne arrahman boobu gaañee ci kaw ñoo koy wax boobu gaa ñi sa kaw koy wax de kuntu kaatiman kuntu kaatiman kuntu sirran kuntu sirran kuntu kun faya kuntu kun fayakun
هذا كبير يرزق الرجال والله لا يمر لا والله لا يمر جمر كنت كاتما كنت سرا كنت كل ما يقول مولاي شيخ أمدادنا والله يسب جمعنا يكرم يكرم مولاي شيخ أمدادنا والله يسب جمعنا يكرم gis nga baat yooyu xam nga muy ne gis nga baat yooyu ay junj la ay junj la ñoom ay code la ñuy joxe ñoom ay code la ñuy joxe xam nga leneen intérêt ca baat boobu xam nga la leen intéressé ci baat du boobu noonu ko waxee de du nuñ ko waxee de kaaf yee leen intérêt kaaf yee leen intéressé kuntu kuntu kaatiman kaatiman kuntu kuntu sirran sirran kuntu kuntu kun kun fayakun.
fayakun kaaf yee la ñuy wax kaaf yee la ñuy wax ki la ñuy waxal dañ leen di nee dégg na li ñuy waxal dañ leen di dégg waaye ñu àggul nag foofu waaye ñi amul foofu nag niveau boobu ci niveau boobu duñu mën a dégg ñooñu duñu mën a dégg wax bi moo tax réalité moo tax réalité yi benn bokk ceeg ba benn bokk seen morom su ko defee Mawlaa Cheikh Ahmadou su ko defee Mawlaaya Cheikh Ahmad li Tijaani mu uuf yëpp ni mu bugg yëpp xaqiqatu Muhammad xaqiqatul muhammadiyya xaqiqatu Ahmad xaqiqatul ahmadiyya xaqiqatu Nasrul Bas xaqiqatul nasrul bas benn bu ca nekk benn ba ca nekk leer ga ka ca soob leer da ko jox soob moom lay génne moom lay di ko génnee def nag ci rox yi di ko def nag ci wax yi ku nekk li mu def ci ku yow nekk li mu def ci yow loolu la sa rox di am loolu la sa wax di àttal waaye ki mu koy def ci yow waaye ki mu koy def ci yow dafay natt sa rox dafay natt sa bopp téyel ko boppam.
ba téyel ko ba xam boppam ni lii ba xam ne lii moo mën a mu jëriñ wax moo mën a jëriñ wax mu def ko ci ma mu daal di ko ciy def moo tax nit ñi di dox moo tax nit ñi di dox wuute lool wuute lool moo tax nit ñi di dox moo tax nit ñi di dox waaye tolloowuñu waaye tolloowuñu moo tax cër yi bari moo tax cër yu bari te wuute nag te wuute nag moo tax xeetu wëli yu moo bari tax xeet wër yu te bari benn bokk te ca benn bokk seen moroom waaye ndaaya waaye ndaaya ñi nga xam ni yi nga xam te la ne ñëpp di tànk te la ñëpp di tànkee naan.
di ci naan ma nga ca haa ma nga ila ca xaaritati bi markazil buhumi wal maani te gis bu nañu jàng te gis nañu jàng ko
looloo tax Mawlaay Cheikh Ahmadou looloo tax Mawlaay Cheikh Ahmed Tidiane Chérif nekkam xat mi nekkam xatmiya te incontestable incontestable nekkam kat mi nekkam xatmiya te incontestable incontestable xam nga dañuy wax waxi course xam nga dañuy wax waxi course Cheikh moom Cheikh moom bu ngeen amee xel dëkk bu ngeen amee xel dëgg fu ñuy waxi course sax fu ñuy waxee course sax buñ ko xul ndax bokk na ndax bokk ca
jël leen kenn rek ci ñi mu jël yàq leen kenn rek ci ñi mu yàgg dugal ko foofu dugal ko foofu ngeen gis ko muy mujje ngeen gis ko muy mujjee dana nekk ca kanam dana nekk ca xam nga kanam lu ko def xam nga lu ko def dafa am ñaari ngaan dafa am ñaari ngànnaay ak xadri yi xaqa xadri yi La kenn attanu.
la kenn attanu Nuuril Mutalsam.
nuuril mutalsam La kenn attanu.
la kenn attanu te Cheikh Tidiane te Chérif Cheikh Tidiane Chérif fexe na ba ñaar yooyu fexe na ba ñaar indi yooyu na ko indi na ko dajale ko dajale ko ba taalibe bi ba taalibe mën bi a toog ci malaan mën a toog ci maanaam wasifa mën a jël ñaari mën a jël ñaari benn bu ca nekk benn bu ca nekk boole ko ak salaat mu boole ko salaat bi salaatul bi faatiha salaatul bi faatiha jawharatul bi kamal jawharatul kamal Ko jàng.
ne ko jàngal
moo tax ku wasifawul moo tax imaam al mahdi al muntazar ne ku wasifawul ku wasifa dana la raw ku wasifa dina la raw ku laazimul ku laazimul ku laazim dana ku la raw laazim dana la raw
ñaari baat yaakaar nee na ñaari baat yaa tax
sunu yaakaar yëpp suñu yaakaar yëpp ci suñu diggante ak suñu borom ci suñu digganteeg suñu borom lenn mën ci dalal sunu xel lenn moo ci mën a dalal suñu xel mooy ñu am leeru yonent mooy ñu am leeru yonent bi
boo demee xadaratul xayb nee na boo demee xadaratul xayb salaatul fatiha lay teer salaatul fatiha lay teeku boo demee juróom-benneelu boo asamaan demee juróom-benneelu asamaan lumière yonent te bi lumière yonent bi jawharatul kamal moo nekk.
jawharatul kamal moo lay teeku kon ñaari lumière kon yooyu ñaari lumière yooyu ëmb na kawnu bi ëmb na kaw ba bi ëmb loo xam ne ba ëmb loo xam ci ne fekk rek kawnu bi ci la bokk.
fekk rek kaw bi la bokk
xam nga ëmb kawnu bi nee na ëmb kaw bi tey wëlu yàlla yëpp tey wëllu yàlla yëpp yiw yooyu la ñuy séenu yiw yooyu dañuy séenu di dem
ku ci sa marché ba mën a xëcc ku ci sa marché ba mën a xëcc nga xëcc ca la nga toll nga xëcc sa la nga tolloon waaye li ëmb nag waaye li ëmb nag fekk rek kawnu bi ci fekk boppam.
rek kaw bi ci boppam
loolu mooy réalité chef loolu mooy réalité Mawlana Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Chérif moo tax moom bu xasee ba moo tax leer moom bu xasee ba lan leeram lëndëm dootu fa amati lëndëm dootu fi amati place
li lëndëm bare bare li lëndëm bare bari Cheikh Tidiane Chérif Cheikh Tidiane Chérif bu xasee ba la bu leer xasee ba lan leeram lëndëm amatu fa place lëndëm amatu fa place loolu yàllaa ko ko def loolu yàllaa ko ko defal moom mu mat ko sëkk mu mat ko sëkk nag ndax xam nga bu bu ni woon moom kese la ndax xamoo bu ñu ne woon moom kese la dinañu demandé dinañu mën demander nañu sax posé question mën nañu sax poser mën question nañu laaj mën nañu laaj waaye daf ko def waaye daf ko def ci ay ci taalibe ay taalibe yu koy prouvé
daf ko def ci taalibe yi daf ko def ci taalibe yu koy prouvé
ñun fii ñu toog nii sangu tedd bi nee ñoom fii ñu toog di nii wax di wax ngeen di yéemu ci la ma wax ñuy yéemu ci li mu wax ñi di jaaxle ñii di jaaxle taalibe Cheikh laaj nee na taalibe moom laa naa Cheikh Tidiane la mu nangul ko
te maa ngi wax lu leen jaaxle te mi ngi wax lu ñu jaaxal di nga taxay ba taxay diggante rek ak shahada waa léegi ki so- ki ma sol loolu nag waaye léegi su ko sol loolu nag kooku de war na leen jaaxle kooku def kon war nañu jaaxal loolu nag grandeur Cheikh sangu bu tedd bi nee loolu mooy grandeur u Cheikh du moom rek du moom rek daf ko wane ci ay daf ko wane ci ay disciple kenn koo ci teg kenn koo ci teg réalité réalité xaqiqatu Muhammad xaqiqatu muhammadiya nekk ci bi roxam nekk ci waxam bu ko bu ko utiliser utilisé ni waajal nga xam ni waajal ko ñaata la ci am ñaata la ci am ci àdduna bi ci àdduna bi ñoo xam ni ku ci ne ñoo xam ne ku ci nekk seede nañ seede nañu dégg sa xam-xam dégg xam-xam dégg xaqiqa sa dégg sa xaqiqa jege yàlla sa jege yàlla sa xaritoog sa yonent xaritoog yonent bi
moom mu toog ci gannaaw moom moom mu toog ca gannaaw moom Cheikh ni ñoo ñëpp moo leen ni ñoom ñëpp moom ma leen uuf uuf moo tax bu génnee moom kenn mënu ko tëggaale nee na moom Cheikh Tidiane bi kenn mënu ko tëggaale kenn mënu ko kenn mënu ko tëggaale xam nga ñoom sax bi ñu wax ni nee na xam nga ñoom sax dañu wax ni boo yëboo boo yeboo bañ a wàlli bañ a wàlli ci làmb waa ci Fass lamb waa Fass di Cheikh Tidiane ndax Chérif Cheikh Tidiane Chérif kenn sëggaale kenn si gaale wu la Chérif nga doo Chérif maas ba doon maas gënu baax sax dañu baax sax làmb waa Fass lamb waa Fass dafa dama sori koy wayaat nee na daf koy wayaat boo yëboo boo yeboo bañ a wàlli bañ a ci wàlli lamb waa ci Medina lamb waa Medina Cheikh. nee na Fass dafa sori nee na dañu yem fii boo yëboo boo yeboo.
bañ a wàlli bañ a wàlli ci lamb waa Medina ci lamb waa Medina Cheikh bii boo ci wàllee boo ci wàllee da nga ci gis leeru xutbaa bi léegi xutbaa bi bu la jaaxal dëgg ko fi.
yàlla baax na ba mu ko waxee sax parce que bu dee bi ne yàlla baax na sax ba nga waxee mu mën sëggaat way ndax moom mën na tëggaat way way boo dégg nee na way boo dégg way ko ci Cheikh ñu way ko Cheikh moom mën na ko tëggaat
way boo dégg nag laa wax way boo dégg la nga wax
way boo dégg ma ni way boo dégg la wax way nañ ko Cheikh ñu ne way nañ ko Cheikh moom mën na ko tëggaat moom ci jamono ji leeral ko leeral ko firi ko firi ko puuga
moom loolu dama ci teg
nee na moom lan la ko fi tegee tegewu ma fi leneen tegee ko fi leneen Cheikh li mu ma fi tege nee na li ko fi Cheikh tegee mooy lu nu dute ci man mooy lu ñu tuddee ci moom Cheikh leeral moom mu leeral ko lu ñu mënul nekk ci man lu ñu ne mënul nekk ci Cheikh moom mu prouvé ko lu ñu mënuma ko ci rox lu ñu ne mënu ko ci wax yi wane ko ci rox moom mu wane ko ci wax yi su ko defee ci su noonu ko defee ci noonu danañu xam ni danañu xam ni ki nekk sa gannaaw ki nekk ci ginnaaw bu génnee du génnee bu génnee ñëpp sëg ñëpp sëg te am na ca xadaratul te ilahi am na nag ci xadatul ilaahi Mawlaa Cheikh Ahmadou la Tijani Mawlaay Cheikh Ahmed Tidiane Chérif baat yi ko mag ñi wax yëpp baat yi ko mag ñi wax yëpp lan la ca mag ñi jublu lan la ca mag ñi mooy jublu bégal seen xol mooy bégal seen xol ñëw bégal seen rox bégal seen rox ñëw koo ci laaj waaye koo ci laaj mu ni la dafa wax mu ne la dafa wax la mu tolloon na mu tolloon Cheikh ci mais boppam Cheikh ci boppam passé na lool dépassé na loolu
xam nga man ku ma yërëm man nee na xam nga moom kan la yërëm mooy ko amul cofeel ci Cheikh mooy ku amul cofeet ci Cheikh kooku laa yërëm nee na moom mii kooku la yërëm xam nga ku sama xel dal ci nee na xam nga kan la xelam dal ci moom mooy ci am cofeel mooy ki am cofeet ci Cheikh man ci topp Cheikh moom nee na moom ci topp Cheikh moom xam naa ni li mu ci doonee tey xam na ne lu mu ci doonee tey baax na ba noppi baax na ba noonu ku ma tiit kay ku mu tiit kay mooy kuy naafi la sax mooy kuy naafile chaque jour nee na lu ne dana ko jàng nee na lu ne dana ko jàng ba pare contre ba pare contre Cheikh kooku damay tiit ci yow kooku day tiit ci moom ndax dama xam la mu mën ndax dafa xam lu mu mën ca xay ba te rey ak ci saxaaba xam yonent bi xam nga sallallahu yonent alayhi bi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam li ko Cheikh Tidiane li ko Cheikh Tidiane bi sëriñ jaral jaral xam yàlla xam yàlla li ko yonent bi li ko yonent bi jaral jaral te lim bi nag te lim bi nag direct la
Cheikh Tidiane yonent bi la jox loxo sang bi ne Cheikh Tidiane yonent bi la jox loxo nangul ko lépp nangul ko lépp yonent bi jël yonent bi jël lumière lumière bu amul fenn bu amul fenn jox ko jox ko te yonent bi te yonent bi lumière ba fu mu ko jël lumière ko ko jëlee te yàlla lu ko jëlee
su ko defee boo su ko contrer defee kon boo contré sax loolooy law loolu mooy law contre nga yonent bi contre nga yonent bi contre nga yàlla mëntoo wax sax lu nit dégg mënutoo wax sax lu nit dégg man kay ku ma yërëm sax ci moom kay ku mu yërëm sax ci nit ñi wala ku ma yërëm ci kuy débat wala ku mu yërëm ci kuy mooy débat kuy wax ku contre mooy kuy wax ak ci compte Cheikh ci contre Cheikh Tidiane nee na ci compte Cheikh Tidiane xam nga lu may ragal xam nga lu muy ragal yow miy wax ak moom yow miy wax ak moom mu mu roofaale la mu loolu ko faale la loolu sax moom moo kooku contre moom nee na ku ko contre moom jarul sax ki waxal ko sopp nag ki ko sopp nga na xamul lu xew bu moom xamul lu xew moom mën nga waxtaan ak moom ba ba muy xam li xew
ndax roox ndax roof lumière rek la soxla lumière rek la soxla soxlawul leneen soxlawul leneen lépp lu koy dundal lépp lu koy dundal lumière rek moo koy dundal lumière moo koy dundal dara dundalul roox dara dundalul woo lu dul lumière lu dul lumière moo tax moom rek lay xëy di moo taal tax moom rek lay xëy di taataan Mawlaa Cheikh Ahmadou Tidiane nag Mawlaay Cheikh Ahmed Tidiane nag wax ni sama ndam man wax ne sama ndam man Cheikh mooy yonent bi taxaw ëllëg mooy yonent bi taxaw ëllëg ma dajaleel ka mbooloo moo xam ma ne dajaleel ko mbooloo boo xamante sa ne génn ku ca moo génn gën a leer moo gën a leer Projecteur.
projecteur
te maa ci am yaqin man te moom ne moom Imam al Mahdi ñuy toog moo ci am yaqin maa moom ci am xàqul yaqin nee na moo ci am xaqul yaqin la taalibe Cheikh Tidiane taalibe Cheikh Tidiane yi bu sëriñ ñu nangul bu ñu wér nangul wérdal mu génn àdduna mu génn àdduna demal barzaq nga xool demal ba sax nga xool bu la ko xoolee bu la xoolee soo amul leer soo amul leer boo moytuwul boo da nga moytuwul gëmm say da bët nga gëmm say bët ba ndax jëwam ndax jëw dafay mel ni dafay mel ni projecteur projecteur de lumière de lumière bu tàppe bu ñu tàppee doomu ci aadama bëtu doomu aadama Ndax leer.
ndax leer
te Cheikh moo koy sàmmal te Cheikh moo koy tàmmal nag
ñu ñëw ñu rek tëb ñuy bokk ci Cheikh.
sang bi ne moom mii ñëwul tëb rek bokk ci Cheikh déedéet déedéet amul benn wëli yàlla bu mag.
nee na amul benn wëlu yàlla bu boo mag xam ni dafa jékki saa boo xam ne dafa jékki saa rek daal di bokk ci Cheikh.
ñëw daal di bokk ci Cheikh Cheikh Tidiane Chérif.
nee na Cheikh Tidiane Chérif ñu wan boppam.
daf leen wan boppam ca xayb ca raybu wan ñu boppam.
moom leen wan leen boppam ci bépp bu ñu doonee rox.
ci ba ñu doonee bu woo ñu doonee ba leer.
ñu doonee leer bu ñu yàlla joxee.
ba leen yàlla cër joxee yam ñu jox ko.
jël yow leen jox ba noppi Cheikh wan ñu ni.
Cheikh wan leen ku ni jaarul ci bu ndëggu jaarul ci ndëggu tànkam moom doo jàll.
doo jàll te ba mu tegee tànk.
te ba mu tegee tànkam du kenn ku ko yëkkati.
du kenn ku ko yëgati te la wala yooyu te la wala yéeraan ku romb ku romb mu yëkkati mu dëgg.
yëgati dëggam teg la.
teg la tamponné na la.
tamponné na la de nga jàll ku romb laa wax.
ku romb nag la wax ku buyee.
te xut bu ya mu yëkkati ndëgg.
mu yëgati ndëggu teg sa tànkam mbagg.
teg sa mag nga nangu nga nangu jàll.
jàll noonu la ko soppi.
noonu la ko toppee noonu la ko toppee bu yëjee.
ba xut bu ya jëf looloo tax mu sañ wax ni.
nee na loolu tax mu sañ wax ba ni ñaari ndëggu sama tànk.
ñaari ndëggu tànk teg naa ko ci mbagg.
teg naa ko ca mbag bu bépp awliyaa te ba ñu bindagul aadam laa wax.
bindagul aadama la wax ba ba ñuy war buftu
wëlu yi seede nañu ko.
wali seede nañ ko seen rox seede na ko.
seen wax seede na ko moo tax bu ma déggee.
moo tax bu déggee ñi nga xam ne jànguñu.
ñi nga xam ne jànguñu wala bu ñu jàngee dégguñu.
wala bu ñu jàngee dégguñu wala bu ñu déggee xamuñu ne.
wala bu ñu déggee it xamuñu lu xew wala seen réer a métti.
wala seen réer a bu metti ñuy dégg naa imaamal da ngay dégg Mahdi.
ñaan imaamal Mahdi moom mooy ne doon taalibe Cheikh.
moom nan la mën a doonee taalibe Cheikh mu ne bu ngeen xamee Cheikh.
nee na mu ne bi ngeen xamee Cheikh Mahdi gën a tuuti.
Mahdi gën ci a mën tuuti ko doon ci taalibe.
mën ko doon taalibe ñëpp ko mën doon taalibe.
Cheikh ñëpp mën nañ ko doon taalibe moo nekk au sommet bi.
moo nekk au sommet bi ginnaaw yonent bi laa wax.
ginnaaw yonent bi la wax Cheikh Tidiane moom Chérif Cheikh la.
Tidiane Chérif la mooy xat mi ya.
mooy xat mi mooy ya xat mi ya.
mooy xat mi
nga dégg tuuti ya jàng rek.
nga dégg tuuti jàng rek dinaan imaamal Mahdi.
naan imaam al Mahdi mu doone taalibe.
nu muy doonee taalibe li ma Cheikh reeloo sax.
nee na moom li ko reeloo sax ñooy wax affaire mission Mahdi.
mooy day wax affaire mission Mahdi xamuñu sax luy mission.
xamuñu sax luy mission Mahdi
xamuñu sax mission bi de.
xamuñu sax lan mooy mission bi moom da ngay dégg ñuy wax rek.
moom imaam al Mahdi ne ñoom da ngay dégg ñuy wax rek da ngay gis léeg-léeg sax benn da nit.
nga gis léeg-léeg sax benn nit ku contour Mahdi.
ku contre wala Mahdi di jàngale ba ba.
pare di jàngale Mahdi reer lay def.
nee na loolu reer lay def ñëwee nañu bokk ci moom.
ne bu ñëwee nañu bokk ci moom ma nga contour Mahdi.
ba pare moom Mahdi bi toog ñëw mu contre Mahdi ba pare da ngay jàngale Mahdi nee na loolu réer la gis nga bu ma joxoon gars yi tuuti.
nee na gis nga moom mii toog di imaam al Mahdi al Muntaza du ma joxoon gars yi tuuti dinaa leen raxas benn si.
dina leen raxas ba ñu set gars yi dañu gërëm rek.
gars yi ñu gërëm rek de ña ngi ko seqal.
nañ ko ñoo seetal mënul jël.
ñoo mënul jël leer yi leer yi di ko dugal ci rox.
di ko dugal ci rox yi ku ci seq ak ku man.
ci seet ak moom mii da nga am yaqin.
da nga am yaqin àqul yaqin.
xaqul yaqin moo tax kilifa daf kilifa koy mat daf kay mbon.
kilifa daf koy mat fu mu ne lëndëm bare nee na.
na fi mu ne la ñoom bari na kaa yu bare.
bagaan yu bari wax nañ ni kenn mënatu leen.
wax nañu kenn mënatu leen sauvé nañ ma leen jox ñetti.
nee na nañ ko ko nañ ko nañ leen ko indil ñetti fan moom ma toog ak ñoom nee ñetti.
na bés bu toogee ñoom ñetti fan wax ak ñoom.
wax ak ñoom ñetti fan jëf ak ñoom jëf ñetti.
ak ñoom ñetti fan buñ fi jógee.
buñ fi jógee waxuma leer.
waxul leer dañoo mujj doon mu.
waaye dañuy mujj doon wëlu yi sax dañuy dëggal sax xadara.
dañuy sax dëggal xandala wala xandala réalité yi ñoo yem.
nee na réalité yi ñoo yamul léeg-léeg daa mel ni.
léeg-léeg daa mere nit li jarul mere.
fekk jarul mere dañoo mënul dugal leer ci moom.
dañoo mënul dugal leer ci moom dafa def erreur.
dafa def erreur demul ca solution.
demul ci solution dafa dem ca ba côté problème.
dafa dem ca côté problème nu ba muy xamee leer.
nu muy xamee leer lu nekk mënul nekk boo demee ci solution.
boo demee ci solution ba xam nag leer bi.
da ngay xam nag lan mooy leer boo bi demee ci problème la.
boo demee ci problème nag ngay xamee leer Pape Gueye Thiès la dëkk.
nee na Pape Gueye Thiès la nag wax na ko fii ba muy soogaa ñëw.
wax na ko fii ba muy soog a ñëw bu daan dégg leer.
nee na bu daan dégg leer xool lamp yi.
day xool lamp yi xool na lamp yi yaakaar ne lamp yi ñooy leer wax na dëgg bi.
nee na wax na dëgg ndax bi lumière.
ndax lumière science la.
science la
neexul xam.
neexul xam du da ngay jug rek xam.
du dangay jub rek xam lumière science la.
science la mais nee gis nga science boobu.
na science boobu balaa ñu la koy jàng.
balaa ñu la koy jàngal dañ koy def ci yow ba.
dañ koy def ci yow ba noppi
leer du ñu jug rek ñu ne lii mooy.
nee na leer bi ñu dugg rek ne la lii mooy leer nga comprendre.
nga comprendre li ñu lay wax suñu bëggee nga suñu comprendre.
bëggee nga comprendre lumière da nga koy sol ci yow ba dañ pare.
koy sol ci yow ba pare suñ la waxee.
suñu la xam nga waxee lan moo lay firi.
xam nga lan moo lay firi melokaanu lumière.
melokaanu lumière sa ruux yi bopp.
sa waxi bopp moo la koy firi sa ruux yi bopp moo sa la.
waxi bopp moo la koy firi waaye suñu ñëwee rek wax la leer.
waaye suñu ñëwee rek wax la leer sa ruux amul leer.
te su ko xamul leer bu la neexee xool lamp.
ku la neexee xool lamp bi yaakaar ne mooy lamp leeru lamp bi parce que xaqiqa bi yëpp parce que sang bi ne xaqiqa bi yëpp suuf su Muhammad suuf su Muhammad la te Muhammad moom te Muhammad moomu Ahmad la fi am Ahmad la fi am te Ahmad moomu.
te Ahmad moomu ak Muhammad moom ak Muhammad boobu li ñu jox léegi ñu leen jox mooy li ngeen di jàng mooy leen di jàng bi ci Salaatul Faatiha.
Salaatul Faatiha Jawharatul.
Jawharatul Kamal
mënuñu ñu jox sax lu ko ëpp ne mënuñu sax jox ñu lépp loolu parce que ñoom parce que ñoom loolu lañ leen jox loolu lañ leen jox yonent bi li mu jox Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane yeneen kii li mu jox Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane moo ëpp doole lépp moo ëpp doole lépp te lan la ko jox te lan la ko jox Salaatul Faatiha Jawharatul Kamal kon loolu ñun suñ ko amee sunu kon maanaam loolu ñun surtout amee suñu malaan
am na lu loo xam ne moo ëpp doole am nañu loo xam ne moo ëpp doole ci xadara ndax xadara yàlla ndax xadara yàlla koo dem ak réalité foo dem ak réalité allahu nga fa allahu nga fa am na ñu koy zikk am nañu koy zikr rahmaanu ba rahmaanu ci sabuur ba ci sabu am na ñu koy zikk am nañu koy zikr waaye salaatul waaye Salaatul Faatiha Jawharatul Kamal.
Jawharatul Kamal privilégié privilégié wu ñoom lañ ko jox ñoom Cheikh Tidiane lañ ko jox cercle des privilégiés mooy chef cercle des privilégiés ñoom la ñu jox ñoom la ñu jox salaatul faatiha Salaatul Faatiha ak Jawharatul Kamal foofu foofu li ñoo tuddee élu par lu principe ñuy tuddee élu par principe foofu lay génne foofu lay génnee lu ñoo tuddee élu par lu ñuy excellence tuddee élu par excellence foofu lay génne foofu lay lu génnee ñuy tuddee les lu grands ñuy pôles tuddee les grands pôles Foofu la ñuy foofu la ñuy génnee la ñoo tuddee dañoo tuddee les missionnaires.
les missionnaires foofu la ñuy génnee mooy ci cercle privilégié mooy ci cercle privilégié ñooñu ñëpp ñoom ñëpp ku nekk ci ñoom ku ci nekk ci Salaatul ñoom Faatiha la yor.
Salaatul Faatiha la yor Jawharatul Kamal la yor
kon ñun lu ñu yor rëy na kon ñun li ñu yor rëy na li des tey mooy ñu xam ko li des tey mooy ñu xam ko appliqué ko appliqué ko te nag gis nga axiru zaman te nag sang bi ne gis nga aaxiru zaman moom laay jeexale loolu lay jeexalee danaa leen ci jox benn secret ne dinañu ci jox benn secret lu néew na nee na néew na turu yàlla boo xam turu ne yàlla boo xam ni jaaruñu ci jaamu ñu ci def ko tarbiya def ko tarbiya moom néew na turu yàlla boo xam ne jaamu ci def ko tarbiya néew na nee na néew na aaya alquran boo aaya xam alquran boo xam ne ni jaaruñu ci jaamu ci def ko tarbiya def ko tarbiya
te xam na nu it te nee na xam na it axiru zaman aaxiru zaman lan mooy remède lan mooy remède bi
ndax ñun ñoo yor mission axiru zaman ndax moom mii toog di imaam al mahdi al muntaza moo yor mission wu aaxiru zaman te loolu moom nee na loolu moom du sax débat jaratul sax débat ndax maa yor mission axiru zaman ndax moom mii moo yor aaxiru mission aaxiru zaman man maa fi jéem nee na moo fi jëriñ aaxiru zaman bi man maa fi jàngale yàlla nee na moo fi jàppale yàlla bi maa fi jàmmoo yonent bi nee na moo fi jàppale yàlla bi maa fi dëkk ak ñu jàng nee na moo fi dëkk Cheikh Tidiane bi
mission axiru zaman moom sang bi ne mission aaxiru zaman moom kenn weranteetu ko kenn garanteetu ko
ndax ñooy jas bu rox yi ndax moom mii toog mooy gas bu wax yi di def leer
di ci def di leen dundal leer di leen di dundal leen wan di di ñu wan ci xàqul yàq ci xaqul yàq yi te axiru zaman loolu la te soxla aaxiru zaman loolu la soxla
waa xëy bu ñoo la dooleel waa xëy bu ñoo la doole du doon ko wax ñoo ma dooleel nee na ñoo ko doole de waa xëy bu waa xëy bu sama jaay lañ nee def na ay gaay la de dina kontur fii nee na ko kontu fii yoo dem fee doo dem fee de dina kontur kaw suuf ñu ngi ci kaw ñu suuf ngi ci àdduna ñu ngi ci àdduna waaye mën it waaye mu ne contrôle bi contrôle bi jeudi ci guddi jëli ci guddi doo dem nee na moom sax jéemul gérer fii waaye fee nag waaye fee daf koy gérer
waxtu waa bay bi moo tax nee waa bay bi moo ma dooleel ñoo ko dooleel
damay gaay la ay gaayam lañ de
ci yaqin laa wax ci yaqin nag la wax mystique yëpp xam ne mystique yëpp xam nañu ko am ku ko ci réeram amul ku ko juree borom course yëpp xam borom dugub yëpp xam nañu ko def ma ko sama bopp dañu ko boppam bi Cheikh Tidiane Chérif Cheikh Tidiane Chérif moo ko def
waa bay bi ñoo la dooleel sang mu tedd bi ne waa rey bi ñoo la dooleel dëgg bu wér la nee na dëgg bu wér la lan la ci teg lan la ci def base mystique base mystique bu Cheikh bu Cheikh sa kiiraay di sa kiiraay
am base mystique rek nee na am base mystique rek wëlu yàlla ci wàllu yàlla doy na ndaan doy na ndaan doy na ndaanam rawatina rawatina ñu ni base ñu mystique ne base mystique Cheikh bu Tidiane.
Cheikh Tidiane yi Mooy sa kiiraay.
mooy sa kiiraay
moo tax léeg-léeg ma gis gars yi di jéem ci moo tax léeg-léeg mu gis gars yi di jéem ci moom
pour anéantir ma pour mystiquement anéantir ko mystiquement
Cheikh dafa ñëw ni ma jëlal bismillahi rahmani nee na rahim Cheikh dafa ñëw ni ko jëlal bismillahi rahmani rahim wa samsi wa duhaa wa shamsi wa duhaaha toog di wax de nee na li lay comme di wax de wal xamari isa sala والقمر إذا طلعها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها nee na di tas di tas di tas complot yi complot yi Di tas.
di tas magie noire magie yi noire yi di tas di tas fétiche yi.
fétiche yi.
ci toog nii rek dana wax nee na su toog nii rek nga wax de comme kuy jàng nii nee rek na waxul guddu gu xam la sax ku toog nii rek mais su comme kuy jàng rek nee na loolu jarul xam la boo koy jàng nee na boo koy jàng nga joxe kaas ataaya nee na bu ñu joxee kaasam naay sax naan naa leen nee na baal bu ñu si gisee nee na loolu bu ko xam sax doo fi nekk di wax doo fi nekk di wax base mystique bu cher nee na base mystique bu cher mu sa kiiraay ku muy sa kiiraay Cheikh Tidiane Chérif Cheikh Tidiane Chérif l'incontournable l'incontournable nee na kooku doo fi nekk sax di wax
moo tax base mystique am moo tax base mystique am mooy sunu kiiraay mooy kiiraay moom Imam al Mahdi mooy déjeu bépp ko mooy dindi bépp complot bu ko complot mooy dindi bépp machine mooy dindi bépp maginoire mooy dajji bépp fétiche mooy dajji bépp fétiche te ci wasam si wa doo te ci wa shamsi wa duhaaha waaw waaw yàlla jëlul saaru alquran yi nee na yàlla jël saaru alxuraan rek wàcce ko nii rek wàcce ko nii rek fu ngay jàng di tax di rek lenn lu ca nekk lenn lu ca ne am na ku mu opérationnel dama la ciy jàngal tuuti ne dañu ciy jàngal tuuti maa ngi doon tëj waaye foog ma nee jàngal na mi ngi doon tëj sax waaye foog mu jàngal ñu ci tuuti gis nga wasam si wa doo nee na gis na wa shamsi wa duhaaha boo ko jàngee boo ko jàngee base mystique bu ci cher base mystique bu Cheikh baat boobu rek laa wax baat boobu rek la wax wasam si wa wa doo shamsi wa duhaaha boo ko jàngee boo ko jàngee ci base mystique bu Cheikh lépp lu ñu defoon lépp lu ñu defoon comme fétiche comme fétiche Comme complot.
comme complot Comme machine noire.
comme machine noire parce que bañ koy def fekk bañ koy def jant bi génn jant bi génn ba jant bi di ba jant bi di soow loolu yàqu loolu yàqu
wasam si wa doo wa shamsi wa duhaaha rek la wax wasam si wa doo rek wa shamsi wa duhaaha rek la boo la wax joxatee beneen baat nee na bu ñu joxatee beneen baat bu ñuy wax muy baat ba ñuy wax wal xamari.
wal xamari Weer bi dugg na.
weer bi dugg na
boo tuddee baatu wal xamari nee na boo tuddee wax baatu wal xamari al rek xamar ñëw alxames ñëw weer bi dugg na weer bi dugg na xam nga loolu lu mu ko nee seet na xam nga loolu mu concerné lu mu def guddi lu ñu def guddi fekk weer baa ngi fekk weer daa ngi génn ba weer ba di ba dugg.
weer ba di dugg nee na yàqu na
soo demee ba ci soo demee ba ci wa nafsin wa nafsin wa ma sawaaha.
wa ma sawaaha Bakkan.
bakkan dootu lu mën a dara dootu la mën a dara bakkan la wax
fokk lu mu luy ci toll nee na foofu la wëlu yu di toll base mystique bu ci cher.
base mystique bu cher fekk mu naan nga dégg mu naan li may def nii li may def nii bakkan mënu ci dara bakkan mënu ci dara fokk lu wëli di toll foofu la wëlu yu di toll boo fa tolluwul boo ko toll boo ko waxee am problème.
boo ko waxee am problème base mystique bu cher base mystique bu cher la wa samsi wa duhaa wa shamsi wa duhaaha moo ko ëmb
waaye jar dafa jar xelu waaye nee na loolu dafa jàkkalu la joxe ataay naan nee na bu ñu la joxee kaay nee na fii ngay toog di jàng fii ngay toog di jàng di daj di di daj daj di daj di daj di daj boo dajee lu ñu boo def dajee lu def guddi dajee lu ñu def daj lu def guddi dajee lu bakkan daj lu bakkan def léegi la moo ci def nee na jox jox tudd suuf ak asamaan Ku mën a suuf ak asamaan yëg ci asamaan nee na ku mën a yëg ku mënul yëg asamaan kay kan moo mën a yëg asamaan nee na kan moo mën a yëg Di asamaan def machine noire.
di def machine noire jarul jaxul tudd yamal ci nee na yemal ci samsi xamar xamal naf nafs
dajji lépp tajil lépp bag yi ci bu seer gaz mystique bu seer mooy kiiraay ba mooy kiiraay ba
looloo tax sang bi ne looloo tax message bi ñuy jàlle message bi muy ñu jàngale mën ko jàlle ñu mën ko jàngale
waa ngay bu kay nee waa ray bu kay buñ la dooleelee buñ la waaye dooleelee mystique Cheikh waa Tidiane mystique bu Cheikh Tidiane Chérif Di sa kiiraay.
di sa kiiraay jeex na
loolooy réalité bi loolooy réalité bi loolu moo tax nag loolu moo tax nag ma ni leen axiru zaman mu ne leen aaxiru zaman comme ñun ñemewuñ ko bañ a xam comme moom ñemewuñ ko bañ a xam ndax ñun ndax ñoo ñun yore mission axiru ñoo zaman yor mission aaxiru am zaman nañ ci yàq yi am nañ ci yaqin moo tax mën leen moo remercier tax mu ne leen remède ci bi ci axiru zaman aaxiru zaman mooy salaatu.
mooy salaatul fatiha
remède bi ci axiru zaman remède bi ci aaxiru zaman luñ la mën ta jox luñ la mën di jox ñaar de moo am ñaar de moo am luñ la mën a jox luñ la mën a jox boole ci salaatul boole ci fatiha salaatul fatiha wala nga bàyyi wala nga bàyyi loolu jël salaat jël salaatul fatiha waaye salaatul waaye fatiha salaatul fatiha tant que moom yaa ngeeg moom tant yaa ngeeg moom la nga bëgg la nga bëgg ak réussite ak réussite ci wàllu ci spirituel wàllu spirituel ci wàllu ci mystique wàllu mystique ci salaatul ci fatiha salaatul fatiha ak ci leer gu ak mën ci ci doon leer ci turu yàlla yi bu mën ci doon ci turu yàlla yi ba léegi ci salaatul ba fatiha léegi ci lay jël.
salaatul fatiha lay jël
loolu mooy chance bi nag loolu nag mooy chance bi te ñun chance boobu la ñu te am ñun nag chance boobu la ñu am
kenn ku nekk ci yéen kenn ku nekk ci ñun mokkal na salaatul fatiha mokkal na salaatul fatiha waxuma mokkalu sëriñ yi de waxul mokkalu kër yi nii de mokkalu roox moo tax may mokkalu wax wóob moo tax muy wax fii Medina Cheikh fii Medina Cheikh suqatunu làmmiñ su suuxatuñu làmmiñ la ñuy suuqat dañuy suuxat xol xol roox ruux
ndax xol ak roox ndax xolam la boobu ca nekk lu ca nekk moom la làmmiñ mën a moom la làmmiñ mënewul moom la làmmiñ mën a génne moom la làmmiñ mën a génne kon sant yàlla kon sant yàlla war nañu ñun war nañu ñun alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla nee na sant yàlla war nañu zaman war nañu zaman bu ne gërëm yonent bi gërëm yeneen bi war nañu zaman war nañu zaman bu ne fonk Mawlaay Cheikh fonk Tidiane Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane yi war nañu zaman war nañu zaman bu ne
xam nga leer gi ngeen toog sax de sang bi ne xam nga leer ñii ñu toog sax bi
xëy na xam ngeen ko sax de nee na xëy na sax xam nañ ko waaye man de li ma jàpp man waaye moom li mu jàpp mooy ba léegi des ngeen mooy ba léegi dese nañ ko xam balaa ngeen ko doon xam dëgg nee na balaa ñu ko doon xam dëgg ngeen dem Barza ñu dem Barzak balaa ngeen ko doon xam nee dëgg na balaa ñu ko doon xam dëgg yowmal xiyaam yawmal qiyaam balaa ngeen ko doon xam balaa dëgg ñu ko doon xam dëgg nga xippi nga xëj bi defe ni ci zawiya nga dafa toog nekk ci dal ya nga Nekk ci bato toog ba dafa yàq ci bato bi ku bàtt bu jëkk nee na bu bato bi indi na loolu sax lu ñu xam ci yaqin la nee na loolu kay lu mu xam ci xaqul yaqin la loolu lu ñu xam ci yaqin la nee na moom loolu lu mu xam ci yaqin la man rek sax de nee na du moom sax rek de lu bare laa wax moom ñu bari sax lu ñu xam ci lu ñu yaqin xam ci yaqin la
loolu mooy sunu chance ñun loolu mooy suñu chance ñun
moo tax ñun xamuñu de ku sauvé moo tax ñun xamuñu ku sobewul ñun de sauvé nañu ñun de sobe lañu
yàgg naa ko wax toujours nee na yàgg na ko wax toujours ni léeg-léeg ay nit naan ne léeg-léeg ay nit naan waaw kuy sauvé loolu yàllaa ko waaw kuy sobe loolu yàllaa ko xam mu ni yow kay nee na mu ne yow kay sauvé woo comme sobe woo loolu sax la loolu sa affaire la yàllaa ko xam yàllaa ko xam yàlla xam na ni yàlla xam na ne ñun sobe lañ la ko xam yàllaa ko xam nee na yàllaa ko xam loolu kenn wetu nee na loolu kenn la waaye yow ko comme sauvé woo waaye comme yow sobe woo loolu la yàlla xam yow loolu la yàlla xam ci yow Ñun yàlla xam ci ñun li yàlla xam ci ñun mooy sobe lañu
doo def boo amee problème nee rek na nit bul def boo amee problème rek rek defe ni ñëpp am problème ko yaakaar na ñëpp am problème bul def boo essayé bul def boo mystiquement essayé mystiquement rek defe ni ñëpp a essayé defe ne ñëpp a essayé mystiquement boo amul leer bu rek def boo amul leer rek defe ni ñëpp amul dafay leer ñëpp amuñu leer bul def bu fekkente ni bu amuloo def bu xàq fekkee ne amuloo xam yi la xamoo ko xamoo ko yaakaar ni ñëpp xamuñu ko
mag ñi dañ daan wax xam nga lu mag ñu ñi dañ daan wax ne xam nga lu ñu gëm man de mënuma man de mënu waaye kenn mënu waaye kenn mënu loolu amul loolu amul
moo tax ku mu neex doy la wal lool moo tax fu mu neex doy la woon loolu ñun de ku ñuy waat ñun de imaam al mahdi al muntazar ku ñuy waar wax nu yàlla wax ñu yàlla te xàqul yaqin ci xaqul yaqin wax nu yonent bi wax ñu yonent bi te xàqul yaqin ci xaqul wax yaqin ñu cheikh wax ñu cheikh te xàqul ci yaqin xaqul yaqin moo tax ku leen mën a waat ku mu ne moo tax fu mu toll nii ñun ñi di jabootam kan moo ñu mën a waar man rek maa ni mën a waat moom dong moo ñu mën a waar
li ko indi sax mais li ko indi sax du da ngeen ma fan rek du nañ ko wala faale da ngeen ma naw wala nañ ko naw dafa fekk li seen dafa bopp fekk soxla.
ne li suñu wax soxla man maa leen ko mën a moom moo ñu ko mën a jox fi ngeen toll la nag mais suñu toll ñu la nag
fi ngeen toll la nag suñu toll ñu la nag
soo ca bëggee am expérience rek ne suñ si bëggee am expérience rek xam nga tey mënu leen déglu kenn nee na xam nga tey jii mënuñu déglu kenn mënu leen dégg kenn mënuñu dégg nit kenn fëggu leen ba set nee na nañu bëgg ba set ci leer ci leer lëndëm du gàtt la doon dugaat léegi ngeen mën a déglu léegi ñu mën a dégg ku nekk ci leer gi toll nee na fi leer bi la toll seen rox di soxla la wax yi soxla parce que mën a tibb moom imaam la ma ñoo ko mën a tibb jaxle ak Muhammad jaxle ko ci xat ñu jax jax ñu ko
ngeen ko déggee rek nee bu ko déggee rek ñu naan ngeen nii xam ni naan ñu li wax naan
loolooy xaqiqa cheikh loolooy xaqiqa Cheikh Tidiane te Chérif ñun loolu la ñu am te ñun te loolu la ñu am kon nag dañu ni woon kon nag nee dafa ni woon suñu ñëwee rek su ñëwee rek clôturer cérémonie bi clôturer cérémonie bi en beauté en beauté xam nga léegi nga dégg nit ñi xam nga léeg-léeg nga dégg nit ñi damay clôturer en beauté damay clôturer en beauté fekk amul sax luy en beauté fekk xamul sax lan mooy en xam nga beauté clôturer en beauté mooy nee lan na clôturer en beauté mooy lan mooy da ngay doore en beauté ba mooy da ngay dooree en beauté ba noppi xam nga la beauté xam nga la beauté parfaite parfaite mooy kan mooy kan yeneen bi sallallahu alayhi wa soo ko sallam yonent bi soo demee yeneen bi clôturer ak yeneen bi clôturer nga en beauté clôturer nga en beauté
ñun nag ñu boole ñaari beauté ñun nag ñu boole ñaari beauté yu exceptionnel beauté yonent bi beauté yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam beauté Mawlaay beauté Mawlana Cheikh Sadiou Ahmad Tidiane
ak beauté waa xay bi ak beauté waa ngay bi sax nga xam ni ñoom ñoo may doole nga xam ne ñoom ñoo koy dooleel moom dama sama xel dal de sang bi ne loolu la xelam dal de sama gars yi ku ñuy doole nee na gars yi njiit waa kay bu ñuy doole ah moom de mission assurée sama jafe na de moom de ne mission Aliou sama jafe na waaye de ñi ma cheikh boole waaye ñi ko Cheikh booleel wax naa leen amateur nekk wax na leen ne leen amateur nekk ko ko ay professeur ñoom ñëpp ay professionnels grain de sable sax la grain de sable sax dañ koy contrôler loolu sécurité bi fii mënuñu ko loolu sécurité bi fii mënuñu ko mënuñu ko doon fooy jaar mën nañ contrôler booy waaye jàlle grain de sable waaye grain de sable ñaata la ñaata la boo ca dëggee boo ci dëggee Effet ba.
effet ba onde magnétique onde magnétique Résonance.
résonance ba sa biir yàq ba ci sa biir yàqu yaram waa kay loolu sama mission nee na moo tax ànd ak mission dama ko la mel baal de waaye nawaa mi ci ñoom a ci doy nee na dafa xam ne daal de waaye dafa am jéem a ci doy de parce que ñoom nee na ndax ñoom ñoom ils sont extraordinaires ils sont extraordinaires exceptionnels exceptionnels
lu lu nit xamul xam nee na lu nit xamul rek ñoom xam nañu ko teewul nag ñoom colonel du tey ñu teewul nag nee na ñoom xam nañu nag ñu ngi def lu mu mën waaye nag gaa yële waaye ne gars yi yële beneen domaine la beneen domaine te loolu yëpp la te loolu yëpp wax naa ko ci sama waxtaan yàgg wax na ko ci waxtaan yu yàgg ni yëpp Mawlaay Cheikh Ahmadou Cissé ni moom daal ci amal ci yàgg jëmi moo leen formé moom moo leen moo formé tax formation bi ñu moo tax formation bi ñu am am formation kenn mësul am formation bi ñu mel kon ñu ngi remercier mbokk kon yi nee ñu remercier mbokk yëpp di remercier kilifa yi fi di teew remercier kilifa yi fi teew yëpp di sant ñi nga xam ne ñëpp di ñoo sant ñi nga xam ne ñëpp ñoo bokk jotaay bi di leen ñaanal di rek leen ñaanal rek yàlla gën leen sàmm yàlla gën leen sàmm yàlla gën leen taxaw yàlla gën ñu taxaw yàlla gën leen yiir yàlla gën ñu yiir ndax jëw bi dégg naa ndax jëw bi sang bi nee na dégg na ko jëw bi agsi na ba ci man jëw bi nee agsi na ba ci moom gaa ñu nee na seen gàmmu yi léegi gaa yi nee na kenn gàmm yi léegi ci dëkk yi ma xam ci nii dëkk yi mu xam ñu nii jege ndar te ñu jege daal ñu amatuñu jeune bu ko nee baax nañ amatuñu jeune bu ko baax jeune boo laajte ndax seen booy laajte nee na ma nga ca LCR ñu ne la ñu ngi ci LCR nee na mu ne leen
war nañ dëkk nee na mu ne leen war ngeen gëstu jeunes yi seen kër la ñu juddoo jeunes yi seen kër la ñu juddoo seen kanam la ñu juddoo seen kanam la ñu juddoo kañ lañ ma xam kan kañ lañ ko xam lu tax ñu dégg ma rek ñëw lu tax ñu dégg ko rek ñëw seen rox seen mooy bopp soogaa dund mooy dafa dund li ñu xamoon lu ñoom ñu xamoon ñoom démb ci alamul démb ci alamul awaa te yëgaguñ ko woon Loolu laa leen wax.
loolu la lay wax wax baax ci suñu moo tax bâche bi loolu la jiitu baax ñu ñëw fii di bâche dégg naa jóg nee na dégg na ñëw bi ma ne ay jeune ngeen di wax mu ne ay jeunes ngeen di wax parce que ay milliers de bu jeunes yàggee ay milliers de jeunes bu yàggee bu ma yablewul bu yàggee bu ñu yàggewul dem leen jàppale ne dem leen bâche sama gars yi ñu jàpp leen bâche la ñu gis ko leen bâche yéen a ma ko jëlee nee na yéen a ko jëlee dégg na ko sant naa ci sax nag sant na ci nag ndax ñu ngi ñu ngi xam li xew ndax nee na léegi yéen a ngi xam sax li xew alhamdulilah alhamdulilahi rabbil alamin xam bi ñëpp di xam nee na ci xam bi ñëpp di xam ni xew yàlla na gën a leer yàlla na nañ gën a leer nañ na nit yàlla na ñëpp gën a yeew yàlla na ñëpp gën a yeewu ñëpp xam fi yàlla seen na njëriñ nekk ñëpp gën a xam fi seen njëriñ nekk yàlla na ñëpp xam fi seen yàlla na njëriñ ñëpp xam fi seen texe nekk ñoom ñëpp buñ ko xamee ñoom ñëpp buñ ko yàlla xamee nañu dem foofu yàlla nañu dem foofu seen texe nekk loolu yonent bi wax dina loolu la yéen a di wax ji loolu la yonent bi ni nee na loolu yéen di wax di ni leen ñaanal julli di leen ñaanal jullit ñi loolu ñu xam ku seen texe ñu xam ku seen texe nekk xam ku seen njëriñ xam ku seen njëriñ ñu dem nekk foofu.
ñu dem foofu ndax yonent bi nee na ndax yéen bi nee looloo leen di na jëriñ.
looloo leen di jëriñ kon nag su ko defee kon nag su ko defee ñu jàng Faatiha ñu jàng Fatiha dem ko ci haajo yëpp tënk ci xaaju yëpp dajo ko salaatu tëjee ko Faatiha salaatul Fatiha ñu tàggoo ci wër ñu tàggoo ci wàllu bët islam bi ba déwén rek ci wàllu bët islam ba waat yàlla dogal ñëpp teew fii ànd ak gudd fan ak wér gu yaram ànd ak wërsëg bu yokku ànd ak taxawaay ci fànn yëpp ci zaahir ak ci baatin bi. ak li ko Umar koy wax léegi bi ñu nekkee ci biir salon bi ni ko daayira yi ñoom ñëpp seen organisation yi taxaw nañu ci wàllu gàmmu bi kenn ku nekk.
jéem na ca jéem na ca la mu ca mën ba organisé nañu lépp ba ña nga xam ne ñëpp ba ña nga xam ne ñëpp moom lañ ko doon coordonné moom ñu ko doon toog nañ ñëw wàllu organisation ci wàllu organisation bi def nañu ko ko doon ñun suñu te ndaw lu ko doon suñu lan la ñun ñi yor mission ñun ñi yor mission bi nekk fii nekk fii suñu mënul organiser suñu mënul organiser suñu bopp financer suñu bopp xanaa di wuti feneen xanaa ñu wut beneen ay ndimbal wala ay financement kon nañu xoolaat suñu bopp
ma ni ko loolu ñu ngi leen di sant moo moo tax mu ne loolu ñu leen ñu leen ci sant di leen ñaanal di leen ñaanal itam boo doon lu ci waay mën mbooloo lu ci waay mën rek déwénee mu gën bu déwénee yàlla ko gën a mën amin am na lu jamono jafe nee na xam na ni jamono jafe na lool
am na xam na ne lu jamono metti jamono métti na lool waaye saafara bi waaye saafara bi mooy Mawlaaye Cheikh Ahmadou Tidiane Sall te leeram lu ne mën na ko yàlla na leen ko yàlla kon yàlla nañ ko yàlla mën loo mu ànd ak wér ànd ak gudd fan ci daayal ci baat yëpp ci baat yi yeneen bi ak Cheikh Tidiane ñu jàng Fatiha tëjee ko salaatu Fatiha
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم بحرمه الله وصل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق الناصر المحمود والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
amiin